te ñoo posé candidat. pour pour candidat ah. <laughs> mais. pour pour lan pour laaj réew mi. waaw laaj réew mi parce que fi mu nekk nii coow li bëri na. coow li bëri na trop trop trop. mbay teelut. ah non non nañ laaj candidat rek. mbay réew mi teel na bàyyil ma ma ma ma ma jël mairie parcelle ba pare rek. non non mu nekk nii gars yi. waaw yow lii moom ëpp na dafa lii dafa ëpp de Mbaye lii dafa man damay riirandoo nii rek xaw ma lu waral coow li ah, man coow Mbaye nag bàyyil tooñ coow amu fi <laughs> wàññi lu ba si kanam wàññi émission yi ba si kanam ah na bi laa dugg nii àll ma la fekk sax man dama dafa ëpp. non eh, wut nii. ci cant yi bëgg a dugg ci biir laay fanaan ci biir. lal lal lal basan. tëb si Sëriñ Tuubaa toog leen bu leen yàq jàngam yi waa toog leen. sama mbokk yi yéen laa bëgg ngeen dimbali ma ngir Sëriñ Tuubaa ngeen toog ana sécurité yi ma jël taara lébu yorul ma ñëw dimbali ma ngir jëli Sëriñ Bamba taara lébu yow nag Lamine ah tax ma taara jóg ma ne. Sëriñ Mor maa ngi lay siyaare jàngkatu xasida yi ñu ngi nii toog may leen na ma dalee sama kàddu gi jëmi Sëriñ Tuubaa ñaari baat rek lay daal sëñ Cissé lii may bëgg a daal si yéen laa koy daal ma fal damaa wax ni Mara mayel ndànk rek mayel ndànk maa ngi nuyu sëñ Moustapha nii di borom kër di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal di sant Serigne Cissé mii di Serigne Babacar Sy. Eh, def na nag def na nag de <laughs> mais Mara hmm. ah de si wàllu sekk la ko daan gisee ñu lay dàq ñu ngay daw ah lii la programme bi demee kon mbay mbay mbay ah mais mbay bàyyil tooñ la ilaha illallah ba tey gaa ngi la topp de xoolal moto yi mais mais mais xoolal moto yi mais mais mais non non non non bul wàcc bul wàcc ne ko mu dem Mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, ni Mara mara, mara, mara, Mara mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, Mara mara, mara, Mara mara, mara, Mara mara xam nga ni xam nga xam nga xam nga ni yaay waaji de loo seetut baaxut loo ñaanut baaxut. gaa yi dañuy dem nan nangu dogal bi nangu dogal dama ni yàlla nangu day yombali duma Serigne Saliou woo pare ci yow Serigne Mara Niass kantal Mara fajkat bu mag bi nan nangu dogal bokk na si coow li de nangu day yombali duma Serigne Saliou woo pare ci yow ngay faj aajo jaam yi ci saayir ak ci baatin sëñ Bamba xewu ku yàlla bind ko tool dani sëriñ Saliou sa waajo dani nañ may jox ndaw ñi ma def ñoom te sëñ Bamba defoon ca mag ña doon ci yoro moo ko ma barke ñëpp la bëgg barke got borom njàpp ndal borom xabbaan borom lagan borom daara ñooro borom wul xuraa borom ñaari daara ci ngaw borom njowan ga ca rom ga bay sëriñ Saliou sëriñ Mara sëriñ Mara sëriñ Mara Mouride Sadikh bu mag waa mbay yow di yow di yow nga ànd rek nga war Serigne Modou Amar moom sëñ Saliou waa ndek Serigne Mara doomi doomi Bamba ji dani nan ma jox ndaw ñi def ñoom lu sëñ Bamba defal ca donte ko ma ni la Serigne Bamba def ni la Serigne Bamba def tooj baaxul tooj sama diggante ak yow la bëgg a dugg soxla taalibe sax li nga géwél lañ taalibe géwél taalibe sax léegi lay lay xëy àdduna bu dëgg yow yow yow yéen suñu saali wu. yéen day dóor. waaw waaw ren. mais délégué. taalibe yi bàyyi nañu yàlla bu yàlla waat léegi dañuy dóor. taalibe yi bàyyi nañu yàlla waat dañuy wéyal. Assane. Assane. kuy